18 avril 2021 mbokk yeeg xarit ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di amati mbégte nag ak bànneex rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk ñu leen di dalal nag ci seen journal de l'arène nee naa leen nii lay demee saa su nekk yéen ñu safoo yéen a ñu yëg te nag ki la yëg nag vraiment moo la sonal moo tax nag à chaque fois journal bi dama ciy ànd ak sama càmmiñ bu ñaawul bi di Babacar Babacar nuyu naa maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax nuyuwal ak yi. di leen nuyu ñoom ñëpp tamit ñi suivre comme ni koy waxee rek di leen ñaanal jàmm si ñoom parce que ñoom bu dul ñoom du baax parce que ñooy jënd xaar seen connexion mhm. defe naa kii def loolu nag ngir di la béggee defe naa foo mën a nekk rek mooy di mhm. ko sago di ko ndamoo di ko ñaanal jàmm dëgg la di wax asalaamaaleykum merci Babacar voilà bu baaxee chers téléspectateurs ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. jeudi 8 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko. mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb tey fi mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk maanaam diggante Ama balde ak Modou Lo ka xëy nag di wax wala ka yëglikaay ba xëy fesal ko ci xëtam mu njëkk mooy Ama Baldé sëll bu ndaw borom Pikine Ama nag moom la mu wax ne na ñett yi daal mooy mission bi tey itam fa suñu caa yii ne wàññi dara dara dara dara loolu daal la ñu bëggal Modou Lo maanaam jubbanti ko corriger loolu tubaab naan corriger du maanaam corriger ko ba mu baax baax a baax mu ne déet na waay Ama duma ko daan ko ko maanaam daal nee lii daal mooy ñetti mbir yi nga xam ne moo ko tax a jóg kon daal Modou Lo moom bu yeboo mu waaj daa mel ni mission wu Ama moom ci moom benn la te leeral na ko maanaam corrigé ko jubbanti ko ba mu ne nocc du ca yem duma ko duma yu méttee méttee métti daan ko bu rëy rëy loolu la fas def ka nga xam ne ni moom moo di Modou Lo yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko Abdou Bakhoum ma koy manaat se moom mu mel ni ki tey bu Ama bëggee duma Modou Lo daan ko moom mu ca de moom chargé na Modou Lo jàpp na ne problème yi amoon bërki dem ca seen TV yëpp du kenn kudul Modou Lo ndax Ama ñëw na heure bu teel toog di ko xaar mu lànk kandaare ni du dugg si ba ñoom ñu yàgg fa mujj a dem kon Abdou baaxum daa jàpp ne kon kuy wax nanga nga wax ak Modou te bàyyi waa pikin keneen koo xam ne tamit ba tey mu nga naan ñu bàyyi waa Pikine mooy Vieux Ndiaye Vieux daal la mu xëy xamle ne na na gaa yi bàyyi di wax naan waa Pikine ay bandi la ñoog ay jàppal bàyyil ne na sënee su Pikine xale Pikine xamee su leen ci affaire wuyuk ay bandek yu mel ni kii noonu moom jàpp na ne kay def ñu nga ca saa su nekk bu nu xëyee ñu nga ca dóor waar képp ku ñu àndal itam ak yow ba mu saf sap wan la loolu nee na kon loolu la ñu toppee Ama Baldé nañ leen bàyyi daal di leen sosal ay mbirum bandeeg yu mel ni ki noonu vie moom loolaa ko naqari ba mu xëy di ko wax keneen koo xam ne nii moom bëree na ba pare dëkk ca boori Pikine muy Lac de Guiers numéro dëkk ca Guédiawaye njëg-yëkkaay bi daal nee na donte am na ndam ca waa moo xam Boy Niang la ak Eumeu Sène waaye nekk na mbër moo xam ne daal maanaam askan wi boo bëggee dégg daal daa mel ni ñi mu ci saf moom bëriwul ñeen am na ñoo xam ne ci làmb ji lañ ne yore micro central ñu ngay wax ca Lac de Guiers 2 mooma muy Ippo Ngari ak ñoxobaay Ippo Ngari ne na Lac day loola waaye mën a wax ci moom nit la koo xam ne défendre moom moo ci chef i ñoxobaay tamit ne na loo ci mën a dégg du songukat de nit ku offensif la keneen koo xam ne nii moom wax na ca jiite amateur yi ci mbirum lag de Guiers ak Eumeu mooy dut janjeek ko dut jan daal ne na doy adada diggante Lac de Guiers seen moom nañ leen ci dimbali bu leen ko kenn waxati ndax nag nekk na loo xam ne nii moom maanaam lañ ca dund barki dem bëgg tuñ caa lu mel ni ki noonu moo tax président des amateurs moom di du jànjee ko ne na moom mooma nan ko fa yemale rek mu yem fa ndax ñoom dañ caa doyal ndax làmb lañ ca xam mooy bëre xeex dóorante songo jël la am keneen ñoo xam ne nii moom dañ nar nañoo songoo xeex doorante muy ñàkk jariñu mu caaroy ak kéwél mu bawal ka jaar nag mooy xaadim sàmb mu mag ma ngeen xam ci wàllum reportage ak journalisme ak yu mel ni kii noonu te muy tëgg ay lamb léegi wala boog mu yàgg koo tëgg taxawalaat na beneen combat bu bees teq boo xam ne daal muy diggante ñaqi jariñu ma ngeen xam ak kéwél ma nga xam ne moo nekk ca bawal yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb duñ fa yem de daa mel ni ki yëglikaay ba tamit lamb simple ji ñëw na ca ak weekend boo xam ne bu nar a saf lay doon moo di Fallou Ndiaye samedi ja mooy njëkk wàcc arène nationale ak ñeenti million yoo xam ne da ko fay teg muy le 10 avril bii nu jëm yëglikaay ba xëy na ca tuus ya wax ñu ko yemuñu ci yëglikaay ba xam nañu ne tamit jàk sa tamit su bët setee ca dimanche ja di la 11 avril boo bëggee dégg dëgg mu nga terrain gaal gi moom itam tegati na fa ñetti million dafa te aw ma nee nam waaye keneen koo xam ne moom ab dat la jàpp muy combat boo xam ne askan waan ko doon xaar kañ lay doon nag fu ñu koy bëree léegi leer na waa Thiam production muy Baba Diaw ak ñamu àndal daal soo bëggee dégg dëgg diggante soq ak gàmmu géey moom jàppal nañ ko ab date maanaam le 6 juin daal la ñu fas yéenee bëre boobu komba dañ fay toxo dem fa nga xam ne nii moom moo di record record moom dikkati ci diggante Eumeu seen ak ka nga xam ne moo di lak waaye yëglikaay ba la mu xëy sampab laaj moom Abou Ndour lenn la nee na Eumeu Sène lan moo tax mu nekk mbër moo xam ne daal maanaam atteindre ko maanaam jot ko yomb maanaam gaaw jafewul am na ñoo xam ne nag ñu nga xëy tey di ca joxe seen ay xalaat bokk na ci Abdou si ma nga xam ne nekkoon na fi directeur technique national ak El Hadji Gaye maanaam daal ñoom xëy nañ tey di wax ca mbir mu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii moom nanu wax alhamdulillah te ñaanal ko yàlla mu gën a wér muy premier tigre de Fass Mbaye Guèye ba mu nekkoon jóge fa nekk kër Tafa Guèye yëglikaay bi xëy na xamal ñu moom record ne léegi nag moom ñibbi na fa nga xam ne nii moom moo di ca këram ca Fass Mbaaw yëglikaay baa xëy ñëw wax lu mel ni ki noonu am na koo xam ne cekri ba mbay gay sos fa lay bëree muy Serigne Ndiaye numéro 2 yëglikaay bi nee moom xaarul fusion Fass ak Ndakaaru maanaam daal licence am moom renouvelé na ko ca la nga xam ne nii moom moo di turu Fass keneen koo xam ne nii moom maanaam lambi simple ji fi mu nekk nii donte arbitre la yore ay ndomba tànk maanaam daal lu jëm ci wàllum lambi simple moom léegi moom la ñu ko jox maanaam moom moo yore mbir moom muy Malick ngoom mi ngeen xam keneen koo xam ne nii moom baaba Babacar Diop ci arbitre yàlla bokk moom itam daal la nga xam ne ne nii moom la fi ñoxor yoroon maanaam séeréer arbitre ya di leen diriger daa mel ni moom itam léegi moo jël place ba ginnaaw ba ñoxor génnee àddina bu ñu fa jógee Equivox su TV la ñuy dem Papa Thierno Ndiaye ma ngeen xam mu TFM mu nga fa di dànkaafu Ama la lam ko xamal daal nee na ko lay am ba des daal kii di Modou loo moom du ñeexum ñebbe te Papa Thierno nee na Modou Lo ku ko bëgg a daan faw nga seree te itam nag doo bëri ak dox faw nga dal nee na looloo koy daan ndax ne na Modou Lo daa xam bés fonk bés te itam jox bés cëram Papa Thierno Ndiaye ko wax du sama ay wax yemu ca Mama Lamine ak Garga de itam jàpp na ne ñaari mbër yooyu nee na boo bëggee dégg dëgg nee na combat boobu mooy combat bi nga xam ne ni ci wàllum espoir wala sax ba ci combat yu mag yi ren moom soo bëggee dégg dëgg Papa Thierno Ndiaye nee na moo fi dàq mu TFM moo wax lool kon waa Vox Arena daa mel ni yéen itam naxu ngeen amateur yi ndax Maama Lamine Garga 2 Tyson 2 Franc lii daal ku ko indi gomis bu la neexee ne la nga indi neex na te amateur yépp ñu ngi koy xaar. mu mel ni ba tey daal soo bëggee dégg dëgg moom ñoom waa Pikine ba ñu waxee ba pare daal biram ñu ngi na leen daal loo ci mën a dégg senes bu senag bandek lépp a ci yem jàpp leen ni yéen waa Pikine nun moom fi mu nekk nii côté yépp pare nañ ci di leen déglu rek lu ngeen bax daanu ko ngeer loolu mooy tontoy biram ñing ca waa Pikine lig Nicolas nag moo organisé woon bés ba moom la mu leen xamal nee na daal si quelque temps lu yàggul dara danañu organiser waat mbir moomu parce que nag nee na du ñàkk ñaari mbëri foo jaar danañu jàkkaarloo kon daal promoteur la ma daan wax rek maa ngi leen di ñaanal la ñu sumb ku ci ne yàlla na nga ko yeggaleeg jàmm voilà mu nekkoon revue des titres Babacar nag ñu daal di ñëw ci euh, suñu làmb seen xët bu njëkk tey li ñu xëyee rek moo di ki nga xam ne euh, moo di Ama Balde ak euh, ki nga xam ne moom la war a dajeel muy Modou Lo gis nag moo di ki xam ne moo di Ama Balde dafa pare pour corriger ki nga xam ne moo di Modou Lo duma ko daan ko waaye nag ki nga xam ne moo di Abdou Bakhouma daal di na ci ñëw moom mu ngi chargé ki nga xam ne moo di Modou Vieux Ndiaye tamit ñu gis ne des fois dañuy taxé gone Pikine yi de ñoo xam ne dañoo bandi moom itam daal dina ci euh, àddu rek. waaw mu mel ni ki daal soo gisee comme li fi nga njëkkee muy ci diggante Ama ak Modou. Mhm. comme li ma doon wax lay wax rek maanaam lamb la joo xam ne lambi dër bi la. parce que mhm. li ko waral mooy fu ñu jaaroon ca mbapat la ba tey ñuy mhm. dox di dox ba lamb boole leen. ah yaakaar naa nag loolu su amee Ama. fi mu nekk nii xel meek xol bi ak li nekk ci moom. mooy nekk roi des arènes ki mu bëggoon dajeel moo ko yor. Mhm. muy Modou Lo. kon déjà boobu combat enjeu gënu du ko passé. Mhm. loolu mooy enjeu dëgg. kantaan nag corriger ko duma ko daan ko. Mhm. Ah, la. parce que comme li ma lay wax rek ku jëm ci a dajeel balaa ngay dem des na tëggal junjung yi. bàkk la taggal la say maam. nga sa bopp wax la nga nar a ngi dégg sa adversaire tamit noonu lay dikkee ah bu ngeen sa yeggee nag kanta corriger duma daan nag. loolu moom. ah yéen ñaar la comme moom loolu la bëgg te loolu la jàpp ne moom la war a def ki nga xam ne mu di Modou Lo kon li ñuy def mooy yónni yàgg rek ñaan yàlla fekke bés ba ak jàmm ñu xool ndax Ama li mu wax dana am mhm. corrigé duma daan mhm. wala déet dëgg la waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di Biram ñi ngi tamit daal dina ci indi tontu nee na moo ñoom daal fi mu nekk nii pare nañ ci côté yépp waaw waaw parce que euh, euh, balaa dugg si Biram sax dinaa ñëwaat si Abdou Bakhoum moomu ci li mu wax ci euh, chargé Modou Lo par rapport li amoon seen TV bërki mhm. démb loolu moom ak lu mën a xew rek Euh, man dama naan problème bi dëgg dëgg dëgg li ko indi pour man sama gis-gisu bopp. Mhm. bokk na ci lieu boo xam ne ni woo nañ fa ñaari mbër yi te xajuñu fa. Mhm, dafa xat trop loolu moom bokk na ci. Mhm. parce que tamit am na benn lieu boo xam ne ni boo fa bëggee dugal Modou Lo ak Ama Baldé ñu war a jàkkaarloog askan wi ak ni Sénégal di xaare naan combat ba ndax dina amam du am. defe naa ne boo ko yóbboon arène nationale sax ne dañuy face à face day fees. sàkkantuma la nag biir seen t gële ak quartier résidentiel lu nekk rek jàngat nga si jëlee Vieux Ndiaye tamit comme li mu wax bu fekkente ne dañuy taxi xale Pikine yi ay affaire de woyoog yooyu mhm. ah moom mu nekk jeune boo xam ne biir Pikine la ne di fa doxal am na droit xëy taxaw ne nag loolu ñuy wax nañ ko teg ci suuf mhm. ah mais nag bon àddina moom moo tëdde noonu mhm. li ñuy wax rek saako pombiteer benn bu nëb ci biir bu ñu saago ne mën na yàq yépp mais Pikine moom yàlla ku fa leen xam-xam ne ay jàmbaara fa dëkk ay garmi ay bañkat biram tamit tontu na leen nee loolu ama wax ci corrigé duma daan moo tax xam naa moom mu ne ñu ngi leen di xaar ci plan yi waaw ñu ngi leen di xaar fi mu nekk nii ay naxante la waaw fi mu ne nii déggoo li ma la foofu lañ toll bataay maanaam bataille psychologique dafa <laughs> mais <laughs> ci communication tamit dañ ciy nappante mhm. loolu lépp moo tax ngay gis wax yi mais lig moom xamal na leen nag lu mën a xew bataille baak lu ci mën a dégg di wax na dëgg jar na ko di ah, ama mu jar na wut ay gaal loolu nga wax mënoon utiliser li wutal ay bateau nga uh-huh. yóbbu ko ci géej gi waaw gaa yi jow gaal yi ñëw ñoom ñaar ku ne toog sa gaal uh-huh. ak sa waa kan ngeen jàkkaarloo ñu toog si gaalam ñu toog sunu gaal jàkkaarloo ak ñoom uh-huh. que combat moo toll noonu waaw voilà bu jógee foofu ñu daal di ñëw euh, ci ki nga xam ne rek moo di Lac de Guiers moom nag malgré victoire yi nga xam ne jot na ko am ci euh, Boy Niang ak Eumeu ba tey rek euh, dafa ni ñaa ngi koy daal ci biir arène bi ki nga xam ne nag moo di Ipongaari ñëw na mu ne il est trop défensif ki nga xam ne nag moo di Papa Ñoxo Baay ma koy nuyu de passage nee na moom il n'est pas offensif moom Lac de Guiers la. waaw maanaam daal ak lu ci mën a xew. Mm-hmm. am nay ndamam. bu fekkente ne bëgg bañ ko. Mm-hmm. fexe na ba ñaari combat yi mujj. Mm-hmm. bu ci ne moom la yëkkati loxo. ak ci jëlee ay ndam parce tamit victoire man du ko xeebal kenn. yaa ngi dégg dafay fekk na nag am nañ droit ñëw jàngat victoire bi noo ko amee waaye nag buñ ko jàngatee ba pare nag dañ la koy nangul bañ la ko xeebal kon victoire bi mu am si Boy Niang am ko ci Eumeu Sène dañ ko koy nangul parce que tamit bu ñu fàtte ko ci loolu lii bi ko Modou Lo di gagné kon bu ci gagné Eumeu Sène gagné Boy mhm. li ñuy def mooy ci côté sport nañ ko nangul ay ndamam mhm. parce que tamit ñëw rek taxaw bu tax bu euh, maanaam seetaan seetaan kese kese kese. non non non donte que nag loolu il faut nga rek ñu ko bàyyi wax ci moom gis nañ ko maanaam mbëri la boo xam ne bu défense la mais ci biir défense am moom day day maanaam ci lay attaqué mais li mu bëgg mooy adversaire am jóg. pour mu mën a daje ak moom mais nag Eumeu Sène itam bëri na ak moom deux fois xam na ki muy bëreel de Guiers mhm. encouragé Eumeu Sène parce que tamit ay ndamam moom am na ko si ñaar ñooñu ah, mhm. na moom fi mu nekk nii doy li tax mu wax loolu xam nga amateur daa nekk bu mhm. dafa metti ndax amateur yi euh, euh, euh, am yi dañuy fay billet yu seer mhm. billet cent mille dañ koy jënd billet dix mille trente mille trois mille lu ne la ñuy jënd mhm. ñëw ci làmb xam nga bu ñëwee ci làmb nag dañuy xaar spectacle fecc mhm. way bàkkoog lépp bu bu loolu jeexee nag arbitre suuf li ñu xaar bëri bu neex mais bu ñëwee nag gisuñu loolu wax dëgg yàlla ah dootuñu bëgg boobu combat xam naa loolu tax du jànjeek ko xëy tey waxee nan parce que moom tamit ko moo jiite amateurs yi mhm. faw tamit muy défendre les l'intérêt des amateurs mhm. des amateurs de lutte quoi parce la ñuy xaar si moom am na solo mhm, ba tey rek euh, combat ñaq jëriñu ak ki nga xam ne moo di Kewel Xaadim Samb daal dina ko taxawal waaw suñu papa Xaadim Samb ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm parce que moom suñu bàyyi la suñu kilifa la suñu idole la ndax yaakaar naa ne ku ne xam na ko ca Sud xam ko ci RTS xam ko tey ak 2STV mu nekk nit koo xam ndax dëgg yàlla ah bokk na si ñu yokk réew mi suñu papa Xaadim Samb ndax yokkum réew mënul passé nga nekk si média liggéey ci ba yegg at yi mu yegg yemoo ca nga jaar sax di ko investir si lamb di produire ay xale ñuy bëri di am dara lu ñu yóbbu seen kër mhm. kon combat bu muy taxawal muy diggante ñaq jariñu mhm. ak nga xam ne nii moom moo di kéwél mhm. yàlla na si jigéen nag ndam loolu lañ koy ñaanal ndax moom wax dëgg yàlla mérito na lu ne ci Sénégal ndax itam ku rafeti wax la te ku mën a defar la baax la moom li ca neex mooy euh, le 10 boobu daa am lu spécial lu ca def parce que dane bawal sans frontière loolu la wax drapeau ba loolu la ko tuddee yemu ca da cay sargal Yaxya Jóob Yékini te Yaxya Jóob Yékini itam ku ko sargal si làmb delloo nga màttu si mbàttu sa ca ndaa la ndax nag lim fi def la nekk na roi des arènes pendant huit ans defe naa kenn daanu ko bokkul ak quinze ans de yi mu def kon mhm. defe naa tey bu fàllu ñëw ne drapeau bool sans frontière ñun di waaye mu ne damay sargal yax yi jub ne la dix mhm. loolu itam wax dëgg yàlla lu xel mën a nangu la di ñaan mhm. yàlla yegg ci ak jàmm rek defe naa ne waxuma sax waa bool kenn du des ndax ñëppay dund làmb waaye bool bool boo xoolee ñoom dañoo bokk ci ñu gën di dund làmb dëgg la waaw moom amut làmb booy dem te fekkoo bool bool ci biir lu biyee ba seer seer mu dagg ko que daa bokk ci sport boo xam ne nii dañ koy dund ndax xam nga bool li ma la koy wax rek je suis fier d'être bool bool waaye nag terewul ñun ñëpp ay sénégalais te sénégal boobu la kenn mënu ko xaar noonu loolu du mën a ñàkk loolu am voilà ba tey rek ki nga xam ne moo di Jax production moom itam teg na 3 millions fële ca terrain gaal bi 11 avril waaw moom it tàmm na loolu parce Jax moom ku ko xam xam ko ci li simple bi moom mhm. bokk na ci ñi jox cër wala boog ñi gën a yëkkati mhm. ci ay mise yu mag defe naa ne euh, saa yu tëggee rek ñu yeggalee si ko ca jax ca mhm. terrain gaal gi. 3 millions loolu neex lay doon fi nekk nii daal làmb ji ubbi na. waaye dafa jax. neex na daal neex na trop. dëgg la bu ñu jógee ci suñu làmb daal di dem nag ci journal record ñoom euh, li ñu xëyee tey rek moo di ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ginnaaw ba ko Gris Bordeaux ak moo du Lo laalee nag dañoo gis ne dafa fragile moom daal 1 2 3 rek mu naaj. <laughs> waaw waaw loolu day mën nañ ko gisee noonu. parce que mhm. tamit maanaam li mu jël ci coup wala li mu naaj si mhm. làmb xaw na bëri. mais bon li koy war a xam nga loxo. dafa diis loxo su loxo mbër. Mhm. te kanam itam dafa fragile. Mhm. ak lu mën a xew ba ci ku dalee dalaat ci pour mu dagg day yomb. Mhm. xëy na loolu nag mooy problème bi. mais boo Eumeu Sène ku ne xam na ne jàmbaar la làmb nag bu ñu làmbi dóor nag moom xaaral dagg dagg nàcc ak buñ bu dañ ak lépp ngi ci biir ah. waaw moom du lu yomb xam boo amoon jëkkër boo amoon jëkkër ji bëri. baax na dina ci yow dàmp ba. waaw baax na yàlla baax na daal ku ñëw baax na waaye daal jëkkër ji bëri. bëri nañ doole daal. ah waaw am ci nag baax nañ de bëri. <laughs> Ah. mën nañoo jigéen de. Mm. wallaay xam naa xam naa leen bu baax. Mm. ay garmi lañ. loolu dinañ ci wax après baax nga dégg bu ñu foofu nag ñu seeti ki nga xam ne rek moo di suñu papa Mbaye Guèye ginnaaw nag ba mu génnee hôpital mu mel ni rek dellu na fële ca Fass Mbao. waaw loolu de alhamdulilah la wax di ñaan yàlla mu gën a mm-hmm. wér. ba mm-hmm. delluwaat ci sagoom. parce que mm-hmm. tamit kilifa la goo xam ne tey làmbi Sénégal wax dëgg yàlla marqué na ci empreinte am. ndax écrit Fass rek maa ko taxawal. loolu rek doy na wax sans compter nag ba mu ko taxawee la fa jaar ci ay mhm. champion ñi ci tedd ñi mhm. tax ñi ñiy tedd tey ci làmb te mbay gay tax mhm. loolu barkeel li mënu ko paase kon defe naa ku toll noonu bu nekkee ci réew mi wéra ñu toppatoo ko faj kook ñi ci dugal seen loxo yëpp ñu ngi leen di jaajëfal mhm. di ñaan yàlla mu gën a wér te gën fee yàgg mhm. ndax nekk na nit koo xam ne nii wax dëgg yàlla du tafaagee mi mu bokkal nday ak bàyyi kese la def mbër de mhm. def na yeneen i champion mbër ñeneen ñuy faye ko ay millions ay écrits yu bëri tax nañu ma am tey Ndakaaru grâce a Mbaye Guèye wala Sénégal yaakaar naa Gris Bordeaux rek doy na ci exemple na gën a wér ba tey rek ca Fass ki nga defaraat na licence am rek waaw xam naa moom xam nga a xam ne moom moo doon mhm. euh, arène nationale mhm. moo tax xam naa mu teel a defar licence am pour mën a mhm. bokk ba tey rek euh, responsable des arbitres ki nga xam ne moo di Babacar Diop moo remplacé fa que moom la ba xam ne moo di Malick Ngom moom itam responsable de la lutte simple dafa mel ni rek gën na yéeg de ca ca responsable ya. mais man de man de li ma jaaxal ci Malick Ngom ji da see boole ay reer. lan déet Babacar nag ma ah, ah. ah. ba ma sës ci miir bi. kon ñu bàyyi ko noonu Malick maa ngi lay bëggee kon moom lañ dénk léegi lit simple bi ah Malick Amina na léegi yow lañ dénk lit simple bi yokk nañ say grade ma koy nuyu di ko ziar moom tamit mm-hmm. buñ ko dénkee lit simple mérito na ko parce li tax mooy defe naa ne euh, xam nga nit boo nekkee kilifa mm-hmm. Malick

Mm-hmm. di la ñaanal jàmm tey maanaam sa chemise rafet na comme ni nga ko doon waxee tak say sa kaw <laughs> di nuyu gomis mi nekkoon si film bi uh-huh. ak xulle mi ne si montage bi uh-huh. di nuyu équipe bi équipe su TV yëpp uh-huh. rawatina responsable boroom kër gi itam duñ ko fàtte di ko ñaanal jàmm saa su ne ak le directeur général de Vox Arena muy Aline Badara Diouf mais laas tamit responsable production du ma ko fàtte ak nga xam ne nii moom mooy Mohamed waaw ta ñu gis ko tamit muy def ay émission yu am solo ci côté politique bi mhm. mook Joni du Joni la ñoom na Boog ñoom Oulimata yàgg maar l'infatigable laa ko tudde waaw moom mooy sama compagnon de guerre uh-huh. moom tamit mu koy nuyu waaye daal di nuyu ki nga xam ne moom mooy astu mi ne ci waañ wi waaw doo ko fàtte macha allah jarta fàtte ki lay jox ngay lekk di dem boo ko fàtte fàtte kenn du moom du wóor astu yàlla sa jàmm yàgg astu jaw farak der eh. du mën a ñàkk <laughs> waaye abib ay abib kooku kooku l'infatigable ku fi nekk ko nekkee ma sunu mooy chargé batterie yi defar fil kenn eh. du moom waaye ana balde borom mbuur mi ngi noonu bëri affaire maa ngi koy bëggee abutubaloo laa koy woowee rastaam ya xam nga ndaama day bëri affaire <laughs> bëri affaire la yàlla na jàmm yàgg amin amin voilà di leen jaajëfal waaye tamit di jaajëfal gumis bi nga xam ne moo nekkoon ci xarale gi Babacar may nuyu na ga waa gaañ Njaay aw ma seen fay yéen laay ndamoo yéen laay safoo voilà mbokk séréer maxey simnaa may simnaa nuun waaw nuun jégum nuun bugum ak gaañ Njaay yes may simna voilà mbokk téléspectateur yi jërë ngeen def <laughs> incha allah